nii lañ koy defee nag dimanche bu jot fii ci euh, rajo Rewmi FM ci émission gox bi tey nag ñu am ci mbégte bu yaatu di ci dalal ki nga xam ni moom moo di Mamadou Gano nekk euh, maire bu commune bu Médina Chérif nekk ci département bu Vélingara tey moom lañu am mbégte lool di ko dalal ci émission gox bi monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi. waaw ah, jërëjëf euh, monsieur Dramé maa ngi lay nuyu bu baax. Mm-hmm. di nuyu auditeur réew Rewmi FM. Mm-hmm. Eh, di nuyu eh, waa sénégalais yëpp. Mhm. Eh, peut-être li ma waroon rectifier mooy département bu Kolda. département bu Kolda justement commune bu Médina Chérif. Mhm. kontaan naa ci invitation bi. Mhm. bi nga ma invité. ci seen rajo bi ak waxtaan ak population sénégalais yi. ci actualité boo xamante ni moo nekk ci temps yi. alors comme ni nga ko waxee gis nañ ni ci semaine bii sax la njiitu réew mi amal li nga xam ni moom moo jëm ci conseil présidentiel jagleel ko ñi nga xam ni moom moo di ndaw ñi alors tey ngay li nga xam ni ngay jàngalekat itam ci université Cheikh Anta bu Dakar tey lan mooy sa jàngat bu njëkk ci conseil présidentiel bi ñu xam euh, ñeel xëyub euh, ndaw ñi. waaw jërëjëf euh, kontaan nañ bu baax xam naa li ñu gis ci temps yi ak actualité Sénégal. Mm-hmm. Euh, loo xamante ni euh, presque musul am. Mm-hmm. ay jeunes yu bari nekk ci ay situation yu jafe-jafe. Mm-hmm. ñu profité nag ci benn événement politique di manifester xam naa ni loolu président déglu na leen. Mm-hmm. loolu moo tax mu président de la république euh, lancé benn programme bu tudd. programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. loolu def ko lancé ci conseil bu mu jël. ci jeudi bi passé. conseil bu am solo. boo xamante ni. dafa woo jeunesse bi yëpp euh, waxtaan ak ñoom euh, gox yi yëpp dañu teewoon fii ci rencontre bi. Mm-hmm. ci loolu nag euh, dafa am ay décisions yu am solo. Mm-hmm. ci décision yooyu. Mm-hmm. maanaam def quatre cent cinquante milliards. ci ñetti at yi mooy deux mille vingt et un deux mille vingt deux ak deux mille vingt trois. njagleel ko ndaw yi. man gis naa ni loolu dafa am solo. li gën am solo mooy aussi. Euh, dañuy créer ay emploi mhm. euh, président la république jël na décision bu am solo mhm. maanaam euh, créer soixante cinq mille emploi mhm. pour jàppale jeunes yi ci ay côté yu bari am na cinq mille yoo xamante ni côté éducation te xam nga ni éducation mooy tabax réew am na loo xamante ni ci côté développement xam nga fii fu ñuy wax environnement dafa am solo. Mhm. donc loolu day dem ci côté environnement. Mhm. am na ay yoo xamante ni ci gox yi. Mhm. mooy pavage mooy dindi sable mooy leneen ak leneen liggéey boo xamante ni intérêt national. man loolu rafet naa bu baax décision yooyu. soo jëlee a part euh, soixante cinq mille emplois dafa am montant bu am solo boo xamante ni dañ ko. war a soutenir ci programme état bi. Mhm. maanaam ñu mel nii ay ANIDA. Mhm. ay PRODAC. Mhm. ay ANA ak yeneen programme surtout aussi jàppale secteur privé bi. gis ngeen ni secteur privé bi contribution bi léegi dem na ba un milliard ba quinze milliards. loolu dañuy jàppale secteur privé yi. pour ñu gën liggéey ñu gën a ay créer ay emploi pour man loolu dafa am solo. surtout nag critères yi. soo xoolee bu baax critères yi. pour euh, ci programme boobu. Mhm. dafa dem critère boo xamante ni inclusion. Mhm. xam nga inclusion mooy lan du ñu bàyyi kenn ci biti. Mhm. nga nekk est-ce que loolu dina yomb di ngeen bàyyi kenn ci biti dina yomb. non de dina du du du day yomb bu baax. pour ñu liggéey ko. parce que déjà def nañu ay rencontres yu bari yoo xamante ni. ay autorités administratives ñoo ko def. avant président bi di def conseil présidentiel bi. war nga xam euh, ci département yi. Mhm. def nañu ay foofu ay daje yu am solo. CRD mooy mhm. CD conseil euh, euh, département yi. Mhm. à part conseil de développement département yi. def nañu aussi niveau région bu ne. ñu def su lu ñuy wax CRD. gouverneur moo ko jiite. ñu xool région bu ne. lan mooy potentialité bi. ban secteur la ñu war a soutenir jeunes yi pour ñu am ay emploi loolu la ñu ak euh, vision président de la république loolu la ñu boole. Mhm. pour def programme bi. Mhm. donc man wóor na ma inclusion dina am. Mhm. inclusion mooy lan. ñu handicapé ñu nekk jeune ñu nekk xale ñu nekk jigéen. ñoom ñëpp nañ leen dugal. beneen critère boo xamante ni dafa am solo. Euh, mooy euh, critère bu bu xamante ni justice sociale. xam nga mënuñu def dara sans programme mu am justice sociale. justice sociale nag dafa am solo. mooy lan mooy nañu jël. suñu xale yi. Mm-hmm. ñu bañ a fàtte kenn. Mm-hmm. nañu liggéey ak différentes couches sociale yi. Mm-hmm. ñoo xamante ni ñu inclure leen ci programme bi. dernier critère bi mooy territorialisation. xam nga loolu dafa am solo. mënuñu toog fii Dakar imaginer ay programme sans pour autant ñu wàcc ci suuf. donc loolu moo tax nag programme bi day wàcc ci suuf. commune bu ne dina gis boppam. dañuy xool commune bu ne ak euh, potentialité économique ak population. ñu def décentralisation. Mhm. en réalité de ces postes la mhm. décentralisation pour ñu jël ndaw yi nekk ci gox yi gën a sori ci Sénégal. Mhm. ñoom tamit ñu gis seen bopp. ñu xam ne Sénégal la ñu nekk ñu xam ne bénéfice su amee ñoom ñëpp war nañ bokk ci bénéfice bi. loolu moo tax ma ne. Euh, programme bi ci ñetti critères yooyu. Mm dafa am solo bu baax. Okay. te surtout enveloppe bi. xam nga quatre cent cinquante milliards. pour un pays pauvre. loolu lu am solo la. ça n'a jamais eu ci l'histoire bu Sénégal. am na ay programmes yu bari yoo xamante ni def nañu ko. Mhm. ci euh, maanaam xëy ndaw yi. Mhm. mais c'est pour la première fois. Mhm. ñu concentrer effort de l'État. vision président de la République ci benn programme. boo xamante ni ci trois ans. pour ñu créer ay emplois te nag ma xamal leen benn affaire. oui euh, yemuñu ci soixante cinq mille yi. cest à soo xoolee programme état bi. Euh, ci agriculture ci wàllu napp wàllu élevage. wàllu ay euh, programme comme euh, PRODAC mhm. PUDC mhm. ak yeneen programme soo jëlee programme yooyu surtout nga jël secteur privé bi impact bu muy am secteur privé bi mhm. pour créer ay emploi loolu dina créer ay centaines de milliers d'emplois foofu nag la gën a am solo parce que ñun euh, lu ñuy jàngale ci économie ak ci gestion état rôle am c'est pas pour créer des emplois pour tout le monde mais nañu def impulsion maanaam soo naree tabax na nga def fondation bi nga bàyyi ñeneen ñi ñoom ñu continuer mhm. donc loolu mooy rôle état mhm. donc impulsion boobu dina am ba secteur privé bi jël le mhm. maanaam ci créer ay emploi loolu moo tax ñu dugal ci ay programme yu bari xam naa incha allah dinañ ñëw ci programme yooyu waaw ci programme yooyu laata ñuy dugg foofu dañ xool ni juróom-ñeenti at euh, defoo leen programme boobu ngeen xaar ba ñetti at dese leen ndaxam jàpp ngeen ni dina yomb non non mais xam nga soo jëlee bu baax lii nekkul loo xamante ni fii lañ ko commencé déjà soo jëlee programme boo xamante ni euh, mooy délégation à l'entrepreneur rapide des jeunes et des femmes DER mm-hmm. Mm-hmm. mais DER déjà lu mu créé ci ay emploi mm-hmm. déjà ëpp na cent mille emplois lu mu créé ci ay entreprises c'est des centaines d'entreprises nga jël nag ay yeneen yeneen yeneen programme xam nga question de chômage là aussi il faut ñu wax dëgg question de chômage amul benn réew ci adduna boo xamante ni chômage amul lu ñuy wax ci tubaab dafa am ay chômage yu bari wax chômage Euh, conjoncturel am na. Mhm. boo xamante ni comme mbas mi am na. Mhm. ay entreprises yoo xamante ni. tëj ñàkk euh, seen liggéey ñu tëj mhm. gaa ñàkk seen liggéey. loolu la ñu la ñuy wax chômage conjoncturel. am na loo xamante ni la ñu wax chômage euh, structurel. loo xamante ni dafa am décalage. entre offre d' ak demande d' maanaam euh, demande globale bi mooy demande ci marché yi. Mhm. lu ñuy war a jënd lu ñu war a jaay. Mhm. loolu su ñuy naree euh, am demande bu baax bu faible. Mhm. maanaam euh, population yi lu ñu war a jënd ci entreprise yi su fekkente seen poste. bariwul nag entreprise yi mënuñu liggéey. mënuñu créer ay emploi loolu la ñuy wax généralement chômage structurel am na lu ñuy wax ci beneen catégorie chômage bu am solo mooy somage frictionnel maanaam mooy lan man am naa emploi liggéey naa am naa benn contrat de deux ans mhm. contrat bi jeex na mhm. balaa may amaat beneen emploi euh, loolu tamit mun na am ma perte ay quelques semaines wala quelque mois mhm. loolu tamit bokk na ci chômage frictionnel donc soo xoolee statistiques yi fu mu nee nii Sénégal am na en réalité un taux de chômage en tout cas d'après ANSD am nañu ay un taux de chômage qui tourne autour de seize pour cent mais taux de chômage bi entre euh, gox bi ci monde rural bi. Mm-hmm. ak euh, ville yi bokkul. Mm-hmm. ci monde rural bi la ñu gën a gis somage euh, mm-hmm. mais loolu yëpp soo xoolee programme yu bari yoo xamante ni président de la République def na ko depuis 2012. programme yooyu andi na ci ay solution yu bari. wante nag comme ban programme tey. oui soo soo xoolee may euh, je mën naa la wax benn programme mooy. le PANAR. le programme national d'autosuffisance en riz. programme boobu def na. ay entrepreneurs yu bari. Okay. soo demee au niveau de la vallée du fleuve. Mm nga gis ñoo xamante ni. ci booru Anambé bi mhm. vallée du fleuve mooy au niveau de Saint-Louis. Mhm. ak euh, ci bassin de l'Anambé. Mhm. ñu bari ñoo xamante ni amuñu woon dara dara dara dara. ren nekk nañu ay entrepreneur ñu ngi embauché ay jeunes. ñoom ñu ngi liggéey. loolu nag def nekk na programme bu am solo. nga jël nag ay yeneen programme mun naa la wax par exemple programme du FERA. le fonds Euh, autonome le fon euh, d'entretien routier autonome. Okay. mais FERA bi def na ay convention ak ay communes. Mhm. am na ay communes yu bari ñoo xamante ni ñooy gis ñi ci mbedda yi. Mhm. di nettoyer. Mhm. ñoom loolu programme bi créé na ay des milliers d'emplois. Okay. donc loolu c'est des pro c'est des projets qui sont réels. soo jëlee euh, Prodac. xam nga Prodac dafa am solo. c'est programme boo xamante ni programme multidimensionnel yoo xamante ni day dugal mbay day dugal élevage day dugal leneen ak leneen. loolu ba ñu créer ay entrepreneur mm-hmm. entrepreneur yooyu su ñu amee seen entreprise mun nañu créer des des mm-hmm. des emplois mm-hmm. donc c' est du concret wante nag war nañ comprendre Sénégal am na lu des quand même bon euh, c' est à fait normal war nañu comprendre aussi euh, population Sénégal mu ngi yokk c' est tout à fait normal su fekkente population mu ngi yokk la demande d' aussi augmente si, si. donc loolu nag la président bi bëgg saafara mais li gën a am solo mooy Sénégal fu mu nee nii c'est le cap sur l'industrie mënuñu okay. régler la question du chômage mm tant que amuñu industrie bu am solo mhm. loolu nag président la république la woote mooy mhm. le cap sur l'industrialisation mhm. gis nga lu ñuy wax chaîne de valeur maanaam soo bayee dañuy commencer activité bi ci mbay mi ba ci transformation loolu dina tax ci côté mbay mi. Mhm. ñu créer ay emploi ñu mhm. créer de la valeur. Mhm. ñu créer maanaam koom. Euh, su ñu demee ci transformation ñu créer ay emploi ñu créer ay koom donc loolu moo tax suñ ko defee ci ay chaine de valeur yu bari ci filière yu bari loolu dina tax Sénégal mu gën a avancé. man li ma métti mooy euh, euh, da ngay gis même su fekkente puso. fekk dañ koy importer. te pourtant mën nañ ko defar fii. loolu moo tax mbas mi am na lu ñu jàngal. tënk. dooleel ñi nekk fii. dooleel mhm. eh, entrepreneur sénégalais yi. Mhm. loolu moo tax soo xoolee côté euh, mooy artisanat. Mhm. mooy menuisier yi. war nañu profité. maanaam ci commande publique bi. justement sax njiitu réew mi wax na nee na leen dina leen jox yenn ci marché yi ñi nga xam ne ñoom ñoo di menuisier yi ak tailleur yi yenn ci blouse yi nga xam ne dañ koy defar comme ça ñoom ñu mën a jël ak ak kii boobu ñu mën ko am ndax loolu yéexul itam. non loolu yeexul xam nga ci commande publique déjà dafa amoon charte boo xamante ne président de la République jëloon na ko. mu ne léegi ci marché public yi dafa am euh, benn partie bu am solo boo xamante ni entrepreneur euh, locaux yi mooy mhm. artisans yi lañ koy jox mais xam nga aussi muñ la jox marché mhm. fekk yow nga nekk ci secteur informel mhm. xam nga loolu aussi problème la doo xam formalisation euh, voilà doo xam lan ngay liggéey doo xam kan nga employé donc loolu moo tax nag entrepreneur yi war nañu def pour ñu formaliser wu ñu bénéficier ci créneau yooyu soo jëlee marché mooy tailleur yi defaa am marché bu am solo. Mhm. man kontaan naa président de la république lu mu wax. Mhm. gis naa su ñuy jëlee école sénégalaise. Mhm. c' est des millions de personnes. nga jël préscolaire jusqu'au niveau des universités. bien sûr surtout préscolaire ba lycée. su leen war a jox ay tenues. fekk tenues yooyu duñ ko importer mooy suñu tailleur yi ñoo ko war euh, defar. loolu dina tax ay milliards yu bari ñu tasaare ko ci dëkk bi. Mhm. gis na suñu tasaare milliards yooyu ci dëkk bi. Mhm. yow tayoor boo xamante ni cent mille francs nga doon am par mois da ngay am un million da ngay am deux millions trois boobaa da ngay jënd terrain da ngay da ngay tabax da ngay changer sa niveau de vie. loolu mooy impact bu am solo ci président de la république lu mu def. Mhm. donc globalement programme yi mun naa la wax. programme yi bari na ak ne ñoom ñooy defar table banc yi. waaw loolu yëpp am na fii. donc léegi du ñuy importer. maanaam lu ñuy importer rek matériel boo xamante ni mënuñu ko defar fii mais à part loolu mhm. ñu ngi ci cap sur l'industrialisation mhm. soo demee ci Diamniadio mhm. dañu créer zone boo xamante ni zone bu attractif maanaam industrie yi mën nañ ñëw ñu am ay avantage fiscal maanaam parce du ñu fay noonu impôt ñu am avantage logistique ñu am avantage accès à la terre loolu yëpp soo ko dajalee day tax ñu am programme bu am solo boo xamante ni mën nañ développer seen entreprise. Mm créer de la valeur mais aussi ñu créer ay emploi mm -hmm. donc secteur privé moo mën a régler. Mhm. en partie la question de l'emploi. wante nag mhm. rôle état mooy. Mhm. en tant que responsable encadré. de la mm-hmm. population moo mm-hmm. encadré mm-hmm. mu mettre les conditions pour que secteur privé bi mu jouer son rôle donc maa ngi profiter nag di remercier secteur privé national vraiment am nañ fi ay entrepreneurs yu ñoo xamante ni ay vrais patriotes lañu président Mbagnick Diop moom ci la bokk ak ñeneen ak ñeneen ak waa Senico ak euh, yeneen entreprise bon bëgguma citer mais ñu ngi def ay liggéey bu am solo ñoom war nañ leen soutenir am à travers mooy initiative yooyu yoo xamante ni président de la république jël na ko mooy mhm. initiative yoo xamante ni avoir des zones économiques spécialisées avoir des zones industrielles mhm. mettre le cap sur l'industrie mmh. développer le programme de financement mmh. mais surtout aussi n'oublions pas les petites et moyennes entreprises ou ah. et moyennes industries ngir tëj parenthèse boobu rek gis nañu fan yi euh, forum du premier emploi euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di groupe promo consulting organisé woon nañ ko loolu itam dafa précédé woon li nga xam ne moom moo jëm ci conseil présidentiel bi ci xëyub ndaw mi kon bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di njiital président Mbagnick Diop ñoom itam mhm. euh, jug nañ ca fajar bi mooy ñaar fukki at ak lu topp ñuy def li nga xam ne moom moo jëm ci promotion ndaw mu xëy xëyum ndaw ñi donc mu nekk ay initiative yoo xam ne itam état war na leen gën a mën a dooleel ci sens boobu na loolu dafa am solo man man mii en tant que nekk na léegi universitaire mhm. mooy jàngalekat université mhm. man participer na fekk étudiant la mhm. ci forum de l'emploi boo xamante ni président Mbagnick mu ko doon organiser voilà loolu maa ngi koy rafetlu expérience yooyu boo xamante ni dangay ngay dajale ñuy génni ñu am ay seen diplôme am seen lijaase bugg liggéey ak ñoo xamante ni am nañu seen entreprise ak seen société ñu ngi uti ay euh, ay jeunes yoo xamante ni ñu ngi leen war a jël. Mhm. loolu dafa am solo. donc gis naa. Mhm. pas yooyu. Mhm. privé yu am eh, vision yooyu. war nañ leen soutenir. donc yooyu moom war nañ leen soutenir war nañu jàppale initiative yu mel noonu. mais je pense que eh, li gën a am solo mooy. c'est que nañu def aussi la le, le cap sur la formation. xam nga formation ku raté sa formation presque maanaam raté nga lu bari. formation. Mhm. il faut ñu ñu tabax la ci formation. Mhm. nga am métier bu baax. Mhm. nga am métier boo xamante ni soo génnee. mun nga créer sa entreprise. mun nga entreprendre. wala nga gis koo xamante ni soxla na la. nga waxtaan ak ñoom nga siñe contrat. nga am sa weer. loolu dafa am solo. mais soo nekkee ndaw. fekk amoo benn formation. loolu tamit dina gàllankoor. Euh, ay solution yu bari pour accès à l'emploi. loolu moo tax na man dama kontaan. li président de la république jël. pour créer quarante cinq centres de formation professionnelle. dans les quarante cinq départements. Mhm. Mhm. mais aussi créer quarante cinq maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. Mhm. xam nga est important pour jeunes yi ñu xam. lan mooy citoyenneté. am na ay jeunes yoo xamante ni. est important pour ñu former leen ci loolu. sur des questions d' intérêt national. donc c'est important que mhm. ñu mettre aussi le cap sur cette question la mhm. pour man euh, le président de la République a été mhm. vraiment visionnaire le fait de décentraliser la formation que la formation soit accessible ci ndaw yi yëpp ok ok tey ñu am mbégte loolu itam di dalal ki nga xam ni moom moo di euh, maire bu commune bu Médina Chérif di Mamadou Gano moom la ñuy dalal tey ci émission gox bi yaa ngi doon wax pàcc bu am solo léegi kan moo entrepreneuriat mooy lan ak kan moo ko war a def xam nga entrepreneuriat euh, ci tubaab. Mhm. mooy koo xamante ni dafa jël initiative. Mhm. jël initiative pour entreprendre. Mhm. maanaam jël initiative pour def dara. yow mën nga am sa formation nga ne ah man sama vision moom du ma dem nekk. Euh, salarié. ñu may maa ngi liggéey par mois ñu may fay. bugg naa man ma créer sama entreprise. ma am alal. Mhm. liggéey am vision. mais entrepreneuriat. Mhm. li gën a am solo mooy d' abord mhm. avant tout il faut nga am défi personnel. maanaam yow si sa bopp. nga am loo xamante ni. loolu nekk na défi. comme ni nga jàngee ba nga am diplôme. nga naa def lépp lépp lépp. sama pouvoir. pour atteindre un objectif. loolu mooy d' abord premier niveau. pour entreprendre. deuxième niveau bi il faut nga am vision. xam nga. généralement fu ñuy gars yi di am problème. Mhm. nga jël idee de projet nga ne loolu projet la. projet la xam nga y a différence mhm. entre l'idée de projet et le projet. Mhm. donc il faut nga am vision bu éclairée. ensuite su fekkente am nga idée bi maintenant nga def la calcul. yow sa idée bi soo ko mettre en œuvre lan nga war a am quelles sont les difficultés. à surmonter. loolu yëpp soo ko defee ensuite maintenant nga dem sur l'accès au financement. soo ko dajalee. Mhm. par rapport au programme. maanaam président de la République lu mu def ci ay programme faciliter l' accès au financement. Mhm. donc loolu na tax nga am sa entreprise. Mhm. nga liggéey mais ku yàkkamte. mënul entreprendre. ok ok mais so, que soo jëlee entrepreneur sénégalais yi. est ce que du contradiction léegi kon bu ñu ñëwee ne euh, délégation à l' rapide. Euh, du du du gaawantu ak DER bi ak tey entrepreneuriat. non du du contradiction xam lu tax du contradiction euh, avantage bi mooy déjà dañuy la faciliter l'accès au financement mhm. dañ la facilité l'encadrement dañ la facilité la formation xam nga loolu yëpp soo ko amee day day gaaw mhm. mais ñu ci bari dañuy daanu jógaat daanu jogaat mhm. ba ñu am les idées claires pour ñu mun a réussir donc loolu moo tax na entreprendre eh, du ku am diplôme rek moo mun a entreprendre am na ñoo xamante ne amaguñu benn diplôme mais vrais entrepreneurs lañ loolu gis nañ ko fii ci Sénégal donc ñoo xamante ni musuñu dem ci école. Mhm. musuñu saapare ñoo xamante ni jàng daara. Mhm. mais ay vrai entrepreneur lañu. donc entreprendre il faut nga am xel. Mhm. nga am vision. nga am objectif. nga nga am patience. fekk doo yàkkamte. parce que soo amee ñaari million nga ne yow da ngay noos comme ku mel nii ko am cent million tekki nga <laughs> voilà doo dem. donc entreprendre. <laughs> dina laaj na ay yenn qualité yoo xamante ni. du ñu am jot pour développer ko. Mhm. mais c' est pour dire. Mhm. que il est bon. Mhm. par contre c' à travers l' entrepreneuriat. la mun na tabax réew. soo demee ci ay réew comme Italie wala Espagne. du grande entreprise moo leen di rek moo leen moo leen andi ay développement bi. développement bi dañ koy andi à la base. à travers les petites les moyennes entreprises. même Sénégal soo jëlee. soo jëlee cent entreprises maanaam ay sociétés cent. lu tuuti tuuti tuuti tuuti quatre-vingt-dix yi ay petites et moyennes entreprises lañ. ok donc loolu war nañu basé wu ci entreprise yooyu pour créer des emplois ñu okay. créer ay emplois décents okay. boroom restaurant bi. Mhm. su fekkente mu ngi liggéey mun na signer contrat mu fay bu baax. borom euh, si vous voulez tailleur bi mhm. mun na liggéey mhm. mais loolu ça signifie que aussi mu am chiffre d'affaires boo xamante ni dafa am solo loolu moo koy jàppale pour mu mun a liggéey ok monsieur maire wax nga ko yenn ci programme yeeg njiitu réew mi teg na xuus nañ ci waxtaan ci am na yeneen boo xam ne itam yitteel na la ci li nga xam ne moom moo jëm ci accès à l'électricité l'accès universel gis nañ ni fan yii yëpp ñu ngi teg ay jéego ngir jëmale ci courant bi mun a daje fépp Euh, lan ngay wax ci euh, programme boobu noonu. waaw jërëjëf euh, xam nga accès à l'électricité loolu dafa nekk droit. Hmm. léegi kontaan naa bu président de la république jëlee initiative. Hmm. mooy initiative accès universel à l'électricité. Hmm. maanaam ñëpp nga nekk ci gox taax yi. horizon deux mille vingt cinq oui horizon deux mille vingt cinq wala nga nekk ci ci village yi. fekk mun nga am courant. lu tax parce que xoolal ci adduna bi. par rapport à ce millénaire la mënoo nekk benn jour. sans téléphone sans internet. Okay. même dans les villages. loolu la ñuy liggéey. donc loolu nag accès à l' électricité. dafa nekk loo xamante ni lu am solo la. pour man loolu droit la. mais soo jëlee Sénégal. de 1960 à 2012. lu ñu doon produit ci eh, mooy ci capacité courant pour alimenter population yi. dafa nekkoon 500 000 gigas. Eh, méga mégawatt. mégawatt waay 500000 mégawatts. Mm-hmm. entre 2012 ak léegi. Mm-hmm. def nañu trois fois. c'est-à-dire 1500 mégawatts de production de courant. maanaam li ci njiitu réew mi def tey Macky Sall keneen defu fa. cest lu lu ñu defoon depuis Senghor. Mm-hmm. def ko Abdou def ko def loolu yëpp dafa nekkoon 500 mégawatts. président Macky Sall bu mu ñëwee. moom dafa ajouté 1000 mu nekk mille cinq cent mégawatts mhm. loolu moo tax léegi gis nga Dakar mhm. euh, euh, kenn sontul di taal ay groupe mhm. donc am nañu courant. Eh, ba tey courant bi day coupé de. waaw mais loolu bariwul parce que même France wala États-Unis courant mun na coupé la mais du bari. mais li gën a am solo mooy ci intérieur du pays bi. soo demee ci gox yi gën a sori. dinañ ci ñëw sa biir gox da ngay gis ñoo xamante ni dañuy am accès au courant électrique. te man gis naa loolu dafa am solo. soo jëlee ci ay programme euh, ASER. dañu am ay programmes yu bari. programme yoo xamante ni c'est des programmes de quatre cent villages yi programme de huit cent villages. pour mhm. accès à l'électricité mhm. te loolu nag les résultats sont visibles. Mhm. soo demee ci gox yu bari. depuis indépendance mosuñu am courant. am na ñoo xamante ni fii lii traversé rek. mosuñu woon am courant. mais léegi maintenant ils ont l'accès au courant. donc loolu nag. dañ ko rafetlu bu baax. te gis ngeen temps yi aussi. Euh, état du Sénégal ak euh, waa euh, pays yoo xamante ni bokk na ci fleuve Sénégal. Mhm. ñu ngi def beneen barrage. Mhm. bu am solo boo xamante ni mun na produire encore. Mhm. une bonne capacité de l'électricité pour encore andi ko ci biir Sénégal. ok am au-delà de ça am nañu lu ñuy wax maillage. maanaam soo jëlee Sénégal avant. courant boo xamante ni dafa lëkkaloo. ci Kaolack la yemoon. ok maanaam Dakar mhm. Thiès. léegi eh, Diourbel mhm. Kaolack. foofu la yemoon. ok maanaam suñu amee courant bu bari fii ci Dakar. Mhm. mënuñu ko yóbbu Tamba. xam nga courant loo xamante ne mënuñu ko stocké. donc suñu produire machine yi tourné tourné. loo xamante ne mënuñu ko consommer fii. mënuñu woon dépasser Kaolack. léegi nag président de la République bu mu ñëwee. def na programme bu am solo boo xamante ni euh, programme de maillage. soo jëlee Ziguinchor. jaar Kolda. Tamba ñëw be Kaolack dafa am may programme bu am solo ligne à très très haute tension. mu lëkkale diwaan mu lëkkale. Mhm. loo xamante ni mun nañu dem jëm uti ji courant bi. Mhm. ci barrage Manantali. wala uti ji ko fii ci dakaar mhm. wala uti ji ko ci Taïba Ndiaye. donc yóbbu ko feneen. foo xamante ni soxla nañu ko ci Sénégal. pour man loolu dafa am. am solo am solo alors yaa ngi doon wax ci euh, mbirum courant yi ci gox ak goxaan yi donc daf ñuy may ñu waxtaanee commune bu Médina Chérif. courant bi fan la toll tey foofu. waaw balaa ngay wax ci Medina Chérif. waaw bëggoon euh, ñu wax ci lu am solo mooy. la question de l'eau waa ndox xam nga euh, ndox dafa am solo. lu am solo la. Mhm. léegi ci programme bu Sénégal soo jëlee bu baax. Mhm. Euh, li ñu waxoon accès à l'eau mhm. dafa nokkoon ay problèmes yu bari. léegi fu mu toll. actuellement je peux te dire. que même dans le monde rural l'accès à l'eau dépasse déjà le quatre-vingts pour cent. ah bon dans les villes mmh. on a déjà dépassé les quatre-vingt-quinze mhm. donc pour ma wax la l'accès à lo est devenu aujourd'hui une réalité te loolu tamit bokk na ci président lu mu def mhm. maanaam président dafa am vision mhm. dafa am programme bu ambitieux mooy les accès universels accès universel à l'eau accès universel au courant ak yeneen ak yeneen loolu nag dafa nekk vision boo xamante ni du vision kese mais dañuy ko jagleel ay ressources yu bari loolu moo tax PUDC ñëw na ci soo jëlee PUDC ak euh, yeneen programme yi lu ñu def. Mhm. depuis 1960 ba 2012 defuñu ko woon ci forage. loolu dafa am solo. Mhm. nga jël Puma lu muy def ak yeneen programme mhm. ci mbaalu mbéy. lu ñu def ci Sénégal vraiment loolu dafa am solo. donc Sénégal. fu mu nee nii. lépp presque ci émergence la nekk xanaa kon Sénégal. mi ngi émerger xam nga émergence dafa nekk euh, loo xamante ni euh, résultat la. mais balaa ngay jot ci résultat bi. yaa ngi ci yoon bi. fu mu nee nii Sénégal ñu ngi ci yoon bi. Mm-hmm. yaakaar nañu ci vision président de la République bu mu am. Mm-hmm. boo xamante ni vision bi euh, transcendé na. Mm-hmm. mooy euh, les les mandats. ok deux mille trente cinq. suñu continuer. ci raay boobu. continuer ci vitesse boobu. deux mille trente cinq. Sénégal sera un pays émergent. ok te loolu nag dafa am solo. loolu suñ ko amoon depuis mille neuf cent soixante. mënoon naa la wax ni jarul ñu woon ay ñu def ay autoroute. dañ doon fekk autoroute am na. Mhm. leneen ak leneen la war ñu waroon liggéey. Mhm. mais président Macky Sall bu mu ñëwee. fekk na lépp nekk urgence. Mhm. mun def pay bi. dans les rails. teg ci yoon bi dëkk bi ci raay bi daal. waaw mais ñu bëri nee doxul dëkk bi doxul de. dëkk bi dox na <laughs> xam nga xam nga Sénégal euh, dafa nekk pay euh, bu baax. boo xamante ni démocratie la. Euh, mun nga def loo xamante ni yow ci sa bopp yaa ngi liggéey yaa ngi. Euh, suturloowu suturloowu mm-hmm. mais toujours danga am ambition mm-hmm. et c'est tout à fait normal mm-hmm. ku am euh, mille par mois yaa ngi am ambition am un million par mois ku am un million par mois loolu dafa am solo mais globalement dëkk bi mu ngi avancé ci gox yu bari soo demee bo fu mu fu mu lay wax nii ci arachide bi lu ñu def lu mu dugal ci Sénégal maanaam suñu ko calculer loolu lu tuuti tuuti tuuti cent mille cinq cent milliards dugg na ci ci monde rural bi mhm. soo demee foo dem fii ci monde rural bi da mhm. ngay gis gars yi ñu ngi dégg tabax ay batiment comme ay ak dugal ay courant ay am na kon loolu nga bëgg a wax loolu c'est des acquis mhm. loolu c'est une réalité lu ñuy ñaan yàlla nag loolu mu continuer ak euh, mu euh, président de la république mu gën am inspiration ñu ñoo xamante ni gouvernement bi ñu gën ko accompagner ñu gën ko gunge parce que foog naa ni euh, lui il dans très vite. Mhm. donc il faut quelque part ñuy jouer musique bi ñoom tamit ñu gaaw. pour ñu euh, am coordination. ñu mhm. am loo xamante ni mhm. euh, lu baax la pour sénégalais yi. parce que sénégalais yi. moo tax ñu nekk fii. sénégalais yi moo tax président de la république nekk fii. donc tant que sénégalais yi ñuy gis seen bopp. dañuy continuer. mais su ñu gisul seen bopp il faut ñu. gana kon liggéey baat léegi ñu jël mbokk moomu ci ligne bi dañ koy jël alo salaamaaleykum rëcc na rëcc na léegi yaa ngi woon ci benn dynamique bu am solo. allo allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waa sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax. yàlla nangu ziar bi ci baalu ak ci weer koor bi ñu nekk takku takkusaan koor moom xaw wax dëgg yàlla moom. <laughs> yow xanaa koor gi moo la jàpp. <laughs> ah koor gi moo wax dëgg yàlla jàpp na séeréer yi tamit de. <laughs> waaw bisimilah ñu ngi lay bàyyi euh, lan nga ñu mën a wax tey ci du Gano bi nga xam ne moom lañ invité. tey waaw vraiment di leen remercier di leen sant di nuyu vraiment votre invité de marque. Mhm. le professeur Gano. Mhm. nit koo xam ne vraiment nit ku am ambition la et puis bu ku am ay résultats la. parce mhm. que tey jii laa la wax balaa nga waxee kii jiw baax na. day laajte est ce que mbokk ko wax. man xam naa très bien euh, gaanu fale fu mu dëkk mhm. wax dëgg yàlla Médina Chérif mu ngi def liggéey bu mucc ay mhm. te état bi tamit seetaan seetaanu ko président Macky Sall mu koy jàppale lu bëri def na nag mhm. mais en tout cas am na lu mu jot a def bi c'est c'est le seul maire Sénégal nga gis gaanu moo moo ay pexe pexe boppam fexe na ba euh, construire ñaari CM fait construire poste de santé diggante mhm. ambulance médicalisée mhm. yóbbu ko foofu noonu laami si mbas bii di amee nii daal au niveau de Kolda fii si Fuladu mhm. wax dëgg yàlla ambulance euh, euh, Médina Chérif bokk na ambulance yu galul liggéey si askan yi loolu nag nit bu ko defee dañ ko war a sant di ko yërëm di ko ñaanal yàlla la may ko wér ak wérle euh, di yëgal ne seen excellence président tous les Sénégalais xam nga ne am na benn rakkam am na benn xaritam bu nekk fii si Fuladu mooy professeur Mamadou Gano bu am solo laa la dañ ko war a dooleel. Mhm. di yëggali chantier yi dafa am loo xam ne tàmbali nañ ko fii ay ay ay ay ay école primaire. Mhm. loolu liggéey boobu tambal na ko yeggagul. Mhm. Eh, dafa am loo xam ne nag de ay pont. Mhm. ay tali ay euh, ay demee dëkk si village yi. Mhm. loolu dañ ko war a liggéey ci seen mu ngi si yi mu ngi si population mu ngi mu ngi la fépp foo xam ne soxla am na foofu. Gane mu ngi foofu. ko sax oto balaa mu ambulance. moom kat kat mairie am da ko bàyyi ba kat euh, kat bi nekk ambulance villageoise. képp ku am problème rek oto boobu nga daw ñëw rek kii daal di yóbbu. donc daal vraiment man maa ngi leen gërëm yéen waa Rewmi FM. rawat na yow Mbembaay bi ko invité tey hmm. di ñaan yàlla jàmm di nuyu vraiment xaritam la hmm. ñoom ñaar ñu ngi liggéey vraiment liggéey bu am solo au hmm. niveau du bassin de avec leur directeur de kii de la Sonagri monsieur Baldé loolu laa mën ci wax ci leen ba di la sant di ñaan yàlla dafa leen di la gërëm bu baax a baax loolu daf ñuy may rek bu ñu jeexalee loolu ñu daal dugg nag léegi ci commune bi nga xam ne moom mooy commune Médina Chérif ñu bàyyi la nga continuer yaa ngi woon waaye donc ma àggale rek ci mhm. programme yi mhm. donc xam nga dafa am ay programme yu am solo maanaam lu mel ni euh, programme sur l'agriculture mhm. xam nga Sénégal soo jëlee pendant longtemps euh, war nañu e, gën a investir ci agriculture mais ñu am intelligence tey moo ñu may résultat bi dafa loolu moo ñu may résultat yi soo gisee ay dëkk yu bari nga jël ay dëkk yu bari yoo xamante ni seen euh, alal bi wàcc na de vingt pour cent maanaam soo jëlee téeméer Euh, mën na ñaari fukk yi mhm. wàññi nañu ci seen alal dëkk yu am solo mhm. nga gis ci su région bi mhm. ñoo xamante ni seen taux de croissance dafa nekk négatif maanaam lu ñu amoon ci alal wàññi na mais Sénégal lu tax euh, suñu économie bi ba tey malgré crise covid 19 bi en 2020 ñu am 1,5 pour cent de taux de croissance maanaam soo jëlee téeméer wàññi nañu euh, benn ak wàll loo xamante ni Euh, ci gox ci mm-hmm. ci richesse ci croissance soo gisee ñu am loolu mm-hmm. man mun naa la wax ni c'est mm-hmm. les bons résultats lu ñu am ci agriculture donc loolu nag dafa am solo man maa ngi wax président de la république na gën a dooleel agriculture agriculture élevage ak pêche ñu jàppale pêcheurs yi jàppale agriculture jàppale élevage secteur yoo xamante ni secteur primaire boo xamante ni suñ ko doolee doolelee mun na augmenter mhm. li seen contribution mhm. ci euh, économie réew mi parce que mhm. euh, xoolal reer nag ñu gaay ñu ngi jaay gerte ba trois cent trois cent cinquante loolu dafa am solo. donc ay acquis ko quoi. loolu moo tax na moom ci conseil des ministres bi nee na. Euh, budget bi fanweeri li nga xam ne moo di soixante milliards. moom mooy budget li nga xam ne moom mooy jëm ci campagne agricole bi est-ce que waru ko woon yokk itam. bu nga fekkee yaa ngi koy plaider. <laughs> waaw xam nga milliards yooyu. bokkul ci matériel agricole. matériel yu mag yi. milliards yooyu engrais semence ak peut-être petit matériel bi. ok mooy maanaam ay xuusin ay semoir yu mel noonu. Mhm. donc loolu mooy pot petit euh, programme boobu. ok mais programme bu gën a am solo bi mooy mécanisation bi. Mhm. Euh, suñu ñu doolelee producteurs yi ñu jox leen ay tracteurs. Mhm. ñu jox leen ay machines yoo xamante ni mun na wal gerte. def ci diwlin ak leneen ak leneen. loolu dina tax ba agriculture bi. gën a am euh, gën a dem ci kanam loolu si demee ci kanam agriculture bi ak élevage bi. Mhm. fekkee euh, soo jëlee côté kii euh, élevage. Mhm. maanaam soo jëlee côté meew. may mhm. lait. Sénégal dina dépenser lu tuuti tuuti tuuti côté soixante dix milliards. ok loo xamante ni day dem ci extérieur. loolu suñu dooleeloon maanaam éleveurs yi. programme président bu muy def. loolu suñ ko continuer dina tax ba kon commencé. am presque autosuffisance en lait. ci lait mm-hmm. loolu nag dey xaalis boobu. di nekk saaru liggéey loolu liggéey la de. donc loolu liggéey la mm-hmm. mais xam nga. Euh, vision bi mu ngi fii les ressources sont la mm-hmm. euh, ñu ngi koy mobiliser ci programme yooyu okay. donc loolu yëpp président la République déjà def na ko def na jox na éleveurs yi lu am solo jox leen journée boo xamante ni spéciale pour les éleveurs mais en plus ci heure bi nii. Mhm. chaque année ci heure bi. Mhm. dinañu subventionné bu baax mooy aliment de bétail bi. te loolu nag dafa am solo. Mhm. man yaakaar naa ni. Euh, secteur yooyu ak artisanat. mooy maanaam mbéy. Euh, napp ak euh, sàmm. plus maintenant secteur de l' suñ leen doolelee bu baax. mun nañu créer ay petites et moyennes entreprises. yu bari. petites et moyennes entreprises yooyu mun na créer ay emplois yu bari. Mhm. te loolu nag. Mhm. Euh, ci ci loolu la président de la république nekk. Mhm. te man rafet naa. Euh, programme bi yaakaar naa. suñ ko continuer dina am ay ah, résultats dinañu am ay résultats yu gën a baax déjà résultat am na. mais les résultats vont augmenter. ok 88 la 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86. du Gallo mooy itam maire bu Medina Chérif euh, tey lan nga ñu mën a wax ci commune bu Medina Chérif sànq junj nga ko hmm. euh, ñu ngi doon wax accès à l'eau potable tey fan nga ci toll yow ci commune bi nga xam ni jiite nga ko depuis mille 2014 ba tey ndax def nga si ay jéego. waaw jërëjëf euh, commune Medina Chérif. bàyyi la nga nuyoo ak ñoom. <laughs> waaw maa ngi nuy sama waa communes yi yëpp. Hmm. nuy population yi. ok mais. commune Médina Chérif. Mhm. d' abord euh, dafa nekk commune euh, boo xamante ni mu ngi ci euh, région de Kolda. Mhm. département de Kolda. Mhm. mais suñu waxee Médina Chérif am na ñoo xamante ni duñ ko xam. mais suñu waxee bassin de Lanambe. foo xamante ni dafa am voilà agriculture culture irriguée. te donc ñu bari xam nañu au moins bassin de Lanambe. donc soo jëlee commune Médina Chérif. am na. ci aménagement boo xamante ne ni Solagri def na ko. Mhm. am na foofu euh, plus de cinquante pour cent ci aménagement yooyu. ok donc euh, Medina Chérif nag dafa am euh, ay particularités. Mhm. mooy ban. maanaam commune boo xamante ni am na potentialité yu bari. ok déjà c'est une commune boo xamante ni qui fait plus de trois cent kilomètres carrés. ok am am ci des terres qui sont véritablement riches. Mhm. en agriculture. am beaucoup de point d'eau. am ñaari fleuve ñoo koy arrosé. donc loolu dafa am solo. Mhm. Euh, ci commune Médina Chérif yàlla dafa def euh, ñu commencé 2014. Mhm. ñu laaj euh, population yi waxtaan ak ñoom. Mhm. yàlla dafa def ñu jox ñu confiance. ci confiance boobu. la ñu dooralee ci programme boo xamante ni programme bi dafa am accès sur ce qu'on appelle les éléments de base. ok xam nu mënuñu wax développement. tant que amuñu ce qu'on appelle le socle. c'est-à-dire mënoo am immeuble tant que amoo fondation. déedéet lan mooy fondation développement maanaam éducation ak santé. Mhm. ñun bu ñu ñëwee fekk nañu euh, école yu primaire yu bari ak collège yu bari euh, dañu nekkoon ci ay abri provisoire. Mhm. maanaam xale yi. dañu euh, doon jàng ci ay conditions yu métti. Mhm. amuñu woon ay salle de classe. loolu moo tax ci départ bi lañu ñu def ambition bi pour régler la question en partie de l'éducation. yàlla daf ñu jàppale. ñu am des partenariats avec la coopération allemande. Mhm. ñu euh, tabax mooy collège bu Medina Chérif. Mhm. boo xamante ni ministre de l' éducation moo ko inauguré en 2016. Mhm. ñu continuer ci programme boobu ñu amaat beneen programme. avec la coopération mooy coopération française à travers le fonds social de développement. ok euh, FSD. donc loolu tamit euh, ñu tabax mooy collège bu Anambé boo xamante ni 100 pour cent abri provisoire. fu nee nii. on na douze salles de classe. Mhm. on a l' accès à l'eau l' courant. c' est mhm. clôturé. donc loolu dafa am solo. léegi accès à l'eau potable foog ngeen ci toll am na ay avancées quand léegi. oui à accès à l'eau potable. parce que mhm. je peux vous dire que bu ñu ñëwee benn gox moo amoon ndox. ndox forage. ci commune bi yëpp. ci commune bi yëpp ci cinquante sept villages yi. mooy Anambé. te loolu ndox bi Diaobé euh, la doon jógee. dem Anambé. mais fu mu am nañu ak MCA ñu am deuxième forage. Mm-hmm. ci deux mille quinze deux mille seize bi. Mm-hmm. mais fu mu nee nii ñu ngi trois yeneen forage yoo xamante ni waa euh, gouvernement du Sénégal. Mm-hmm. le président Macky Sall maa ngi koy gërëm bu baax. a travers le PUDC. ñoo ñëw pour jàppale suñu gox bi pour ñu am accès à l'eau potable. fu mu nee nii je peux vous dire qu'on a trente kilomètres de réseau. ak trois forages. yoo xamante ni mun na alimenter au minimum. autour de vingt cinq villages parce que mhm. liggéey bi pareegul ñu ngi liggéey fu mu nee nii ñu ngi gas ñu ngi yóbbu tuyaux yi mais loolu suñ paree mhm. mun na la wax ci commune Médina Chérif près de deux pour cent accès à l'eau potable en 2014 mhm. dinañu dem d'ici fin d'année à autour de quatre pour cent d'accès à l'eau potable loolu nag dafa am solo parce que ça contribue au développement des populations à la base okay. deuxième programme bu am solo mooy ci fondation bâtiment bi mooy la santé xam nga amul santé. Mhm. ku werul doo xalaat lenn. dëgg la waaw li ngay xalaat rek. Mhm. naka ngay def pour nga am euh, une bonne santé. Mhm. loolu moo tax amoon nañu ñaari post de santé yoo xamante ni c'est avec euh, les partenaires. benn bi euh, programme dans le cadre de moo ko tabax. mais ñu ne loolu doyul. parce que dañu am ay particularités suñu commune. am na benn parti boo xamante ni malheureusement parti bu enclavé la. ñu tabax foofu poste de santé en attendant état bi di jàppale ñu pour ñu am foofu euh, piste de production. Mm-hmm. ñu tabax foofu poste de santé euh, boo xamante ni poste de santé équipé. Mm-hmm. ñu uti ji ay personnel de sante ok fu mu nee nii ñun commune Médina Chérif dañu am plusieurs personnel de santé yoo xamante ni ñun ñoo ko recruter ñoo leen di di fay. Euh, loolu dafa am solo. Mm-hmm. yemuñu ci loolu gisoon nañu Médina Chérif dafa nekk à quatre-vingts kilomètres. Euh, hôpital régional bu gën a sori. bu Kolda bu mhm. Kolda. mu nekk à plus de cent vingt kilomètres. Mhm. hôpital régional bu Tambacounda. Mhm. donc loolu moo tax ñu def lépp. pour ñu àndi foofu benn ambulance médicalisée. mais gis nañ foofu sax balaa ngay tàmbali gis nga euh, semaine bi gis nañ ko euh, cadre yi nga xam ne ñoo nekk ca Kolda ñu ngi doon ñaxtu ci li nga xam ne moom moo jëm ci benn gynécologue amu leen ko woon hôpital régional bu Kolda naam jox nañ ko ni ki ëllëg la war a door fonction mais. bu ñu commune bu toll wala région bu toll ni Kolda amul gynécologue loolu tamit euh, monsieur le maire loolu métti na de. non non loolu moom dafa nekk loo loo xamante ni métti nañu ñun waa Kolda. Mhm. xam nga région de Kolda soo ko jëlee euh, minimum yaa ngi ak huit cent mille habitants. Mhm. nga jël huit cent mille habitants amul woon gynécologue. Mhm. loolu daf métti amoon nag gynécologue. si si mais euh, yàlla dafa def mu genn. mais. Euh, yàlla dafa def aussi ministère de la santé ak président de la république. Mm-hmm. Mm-hmm. dégg nañu waa population Kolda. waaw ah, parce que ba ñu waxee lañ door a affecté kenn. oui oui mm-hmm. mais xam nga aussi loolu defa nekk benn réalité. gis ngeen nii ay yenn spécialité bariwuñu ci Sénégal. donc mais kontaan na bu ñu amee gynécologue. mais aussi war nañu am yeneen spécialité. parce que Kolda. mu wàcc ci yeneen communes yi oui oui Kolda dafa nekk régi euh, euh, hôpital régional bu am solo. soo demee ci Kolda waa Guinée. Conakry ak waa Guinée Bissau mhm. dañuy fréquenter poste kii hôpital boobu donc sans compter mhm. les quarante communes mhm. yoo xamante ni ñoo woor région de Kolda loolu yëpp soo ko jëlee war nañu augmenter les spécialités maa ngi lancer un appel en tout cas euh, pour euh, gouvernement de Sénégal jàppale ñu ñu yokk spécialités yi gana dooleel hôpital bu région de Kolda comme ça euh, nit ñi fekk du ñu sonn. Mhm. chaque fois di dem Tamba. Mhm. wala di dem Ziguinchor. wala dem feneen. Mhm. donc loolu dafa am solo. kontaan naa mais. Euh, war nañu doole encore jéego quoi euh, poste de santé waaw ñu la nga continuer ak sa commune voilà donc loolu laa doon wax ma may santé mooy le socle santé ak éducation loolu moo tax ñu def lu am solo ci côté santé ak ci man maanaam ah, uti ay ambulance uti euh, personnel de santé. Mhm. yoo xamante ni commune bi moo koy fay. te naam bëgg nañu ñu yokk leen. Mhm. voilà wala ñu jàppale ñu. Mhm. alléger ñu suñu tâche. waa ministère de la santé ak ministère de la fonction publique. jàppale ñu ñoom ñu dugal leen ci fonction publique. parce que loolu dafa solo. sinon day alourdir charge commune. ah du yéen a acte trois de la décentralisation baax na kay est que nekkul kon di leen gàllankoor. waaw xam nga loolu acte trois kenn. ok sans acte trois. Mhm. même su fekkente amoon nañ poste de santé poste de santé bi mënoon a nekk foofu deux ans trois ans tant que état bi amul woon yónni woon ay médecins wala ay ay infirmiers. Mhm. au santé bi du doon ubbi. ok donc acte trois bi moo tax. ñu jàll statut mhm. juridique communauté rurale statut juridique commune boo xamante ni dafa am solo soo amee ressource mën nga recruter donc euh, euh, kontaan na ci programme boobu def na ñu jàppale ci gox boobu parce que eh, zone boobu. Mhm. dafa am euh, lu tuuti tuuti tuuti euh, dix mille habitants yu nekk ci côté boobu. ok à partir hivernage su jotee. Mhm. Euh, presque mënuñu genn. Mhm. voilà dañuy coupé wu am na ay cours d'eau yoo xamante ni malheureusement ya a pas de piste de production. ci zone boobu. loolu moo tax maa ngi profité lancer un appel. à l'état du Sénégal PUDC ak yeneen programme. mu def jàppale ñu jéego yi quoi. am foofu ay piste de production. donc loolu dafa nekk yu am solo. def nañu. Euh, yu am solo ci côté santé bi mhm. jàppale euh, le secteur de la santé à travers des dotations en médicaments mhm. bu ñu ñëwee mhm. le budget euh, sur les médicaments dañu ko multiplier par par huit voilà ñu ngi woon cinq cent mille mais yóbbu nañ ko ba trois millions daaw ren on va l'amener à six millions donc okay. je peux dire qu'on l'a multiplié presque par onze mm -hmm. donc pour permettre poste santé yi ñu am médicament mhm. pour mun a euh, fair face maintenant aux malades notamment pendant l'hivernage yoo xamante ni pari bi dafa bari mhm. donc loolu nag euh, dafa am solo à part éducation ak santé mhm. mun naa la wax ci côté euh, santé balaa may pare ñun suñu ambition mooy ñu am foofu centre de santé xam nga wax naa la sànq nga nekk quatre vingt kilomètres di dem Kolda de Kolda nga nekk cent vingt kilomètres de Tamba nekk soixante kilomètres presque de de Vélingara war na am centre de santé okay. donc ñun. est-ce que yaa ngi ciy def ay jéego. way actuellement on a dans le cadre du plan de développement communal. ñu jël mbokk mi ci ligne bi. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ah sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax. delloo ziar delloo ziar. waaw tur bi ak foo ñuy woowe ak ah, ay man maa ngi tudd Mamadou Gano. du Gano waaw bisimilah Mamadou yaa ngi ci biir. du Gano waaw maa ngi wootee depuis euh, commune bu na Serigne. ah loolu am na solo ñu ngi lay nuyu bu baax di bàyyi ak monsieur le maire mu ngi nii. Mamadou waaw kay waaw kay nuyu maa ngi koy nuyu bu baax a baax di kontaan si moom bu baax a baax kay. Mhm, mhm, mhm. am na solo lan nga ñu mën a wax si moom trop trop trop ci invitation bi waaw. Ah, jërëjëf jërëjëf jërëjëf. waaw waaw waaw. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf waaw ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg. waa kay waa kay man dem bëggoon apporter quelques témoignages rek ci moom. acca bisimilah. waa kay ndax euh, moom bi mu toogee fii ba léegi bon bi mu jë fi mu fi mu jëlee commune ak fi mu ko indi tey. Hmm. donc loolu defe naa ñun ñoo ko mën a témoigner. donc mhm. ci ci ci volet ci volet éducation bi moom fu mu toll nii les populations sont vraiment satisfaites. ñun mhm. ñu kontaan nañ trop si moom parce que defar na école yi xale yaa ngi jàng amatuñ problème am nañ am nañ problème am nañ ay lycée mhm. léegi vraiment alhamdulilah. te ci wàllum emploi employabilité tam ci ci jeunes tam mu ci taxaw bu baax a baax a baax a baax wax dégg fa yàlla. donc pour dire que les populations de la commune de Ménéssène sont vraiment contents de lui. ñun mhm. daal ñun daal dañoo kontaan ci ñoom loolu laa mën a wax. Mhm. waaw dañoo kontaan ci moom bu baax a baax a baax di ko nuyu di ko di di ko di ko di ko ñaanal. gudd mhm. fan ak euh, wérgu yaram bu baax. dëgg la dëgg la am na solo. am na solo wallaay wallaay. ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax. waa kay waa kay. jërëjëf. alors monsieur le maire kon askan wi ñoo doon témoigner noonu ci loolu dañ la bàyyi après bu ñuy jeexal émission bi nga daal di leen tàggoo nuyuwaale leen bu baax mais yaa ngi woon ci ay volets yu am solo ci santé. Voilà. ambulance yi. ci fu ngeen ci toll. Voilà. centre de santé bi tey ndaxam daf nga ay démarche ngir am ko. voilà ci côté centre de santé bi ñun on a commencé déjà les démarches avec des partenaires. ok xam nga centre de santé de jékki-jékki rek nga tabax. Mhm. il faut nga am autorisation. Mhm. ci ministère bi. mën naa la wax ni ñun ministère bi suñu joxee autorisation. Mhm. ñun am nañu ay partenaires ñoo xamante ni ñu ngi fii ci Sénégal. Mhm. am na ñoo xamante ni ci bitim réew lañu nekk. Mhm. donc ñoom il sont prêts à nous soutenir. pour ñu tabax foofu benn centre de santé parce que dafa am solo. soo jëlee au delà de la commune de Médina Chérif. mën naa la wax communes yu nekk ci à côté. Mhm. soo jëlee seen population mhm. ah, na centre mhm. de santé. ñu yokk donc infirmiers yi. doyuñu. maanaam mu ngi def ñu ngi def liggéey bu baax. mais il faut que ñu am centre de santé am médecin am spécialité. yoo xamante ni mun nañ jàppale population yi balaa ñu def chaque fois quatre vingt kilomètres. cent vingt di dem ci hôpitaux yu a sori yi. ji gën a jege yi. mais mun nañu. Euh, am les premiers soins. Mhm. su laajtee ay yenn expertise mhm. ay yenn spécialité boobaa mën nañ la yóbbu mhm. hôpitaux régionaux yi donc loolu euh, su ministère bi joxe autorisation moom ngay ne xaar man mën naa la wax nii ni euh, d'ici un an et demi deux ans mën nañu am centre de santé ministère ngeen di xaar mu def mu tontu leen voilà ci ci ñu am autorisation ok ok monsieur le maire wax nga fi programme wax nga jéego yi nga fi nga def sa commune depuis 2014 accès à l'eau lycée yi li ñu fa def askan wi dafa mel ni sentir nañ ko ndax ñoom buñ la nee nga présenté wu waat wala élection yi nga xam ni wala léegi bilan bi lan ngay wax ci sa bilan yow. waaw jërëjëf euh, peut-être lycée bi amaguñu d'abord lycée. waaw yéen a ngi koy yéen a ngi koy junj ñu ngi koy kii depuis daaw. Mhm. Euh, fu mu toll kii nañu ci ministre de l'éducation nationale bi élève. Mhm. Mhm. Euh, bon yaakaar naa ni am nañu en cas confiance que mille. deux mille vingt et un deux mille vingt deux. Mhm. yaakaar naa ñu am lycée. Mhm. donc loolu dafa am solo. Mhm. mais mun naa la wax ci ci maanaam ci lu ñu réaliser suñu équipe bi. 2014 ba euh, tey. commune Médina Chérif amuloon benn village boo xamante ni dafa am lotissement. ok fu mu nee nii on a fait le lotissement sur deux villages. Médina Chérif ci boppam. mais aussi def euh, lotissement ci anam bi. à part programme boobu état du Sénégal. ñu ngi def ay liggéey bu am solo. Mhm. notamment pour continuer l' accès à l' électricité. Mhm. am nañu dans le cadre d'un programme euh, piloté par euh, euh par euh, la CEDEAO. Mhm. mooy ECRE. ak waa ASER. def nañu foofu trois villages yoo xamante ni central solaire la ñu am. donc euh, loolu tamit mise en service moo des. mais waa ASER aussi ñu ngi ci beneen programme. pour dugal courant bi ci yenn sept villages. mais aussi yokku ñu jël ki si ligne bi salaamaaleykum. waa ñu ngi lay ziar bu baax sëñ bi waaw tur bi. waaw waaw waaw sama ñaar yi xam nga xamul jeex ah, xam ko réseau ci tënk euh, monsieur le maire mu ngi lay dégg lan nga ñu mën a waxal ci moom. waa kay waa kay moom laa bëggoon moom daal instant bi na xam ne daal. Hmm. mandat bi daal tey ant cour de téléphone bi ma ndax xoolal liggéey bi mu def ci commune moom maar Deytaano. Hmm. di yàlla. Hmm. nit ñi dañoo kontaan ñoom dañoo kontaan ci moom bu baax a baax a baax. waaw nit moom mhm. xam nga buñ la joxee commune bu néew doole bu toll ni mel ne Nigéria nga jël ko liggéey ko mhm. ba indi ko fu ñu toll fii tey mhm. xam nga loolu daal expérience moo koy def ak yërmande waaw muy muy muy muy def daal li mu mën ci commune bi te ñun ñu ñu ngi koy sant bu baax les gens sont tellement satisfaits de ces de ces de ces œuvres di ko ñaanal rek di ko ñaanal gudd fan am na solo am na solo am na solo am na ah, solo. kon nuyu nag bu fekkee ne mu may dégg maa ngi koy déglu bu baax. jërëjëf Mamadou kontaan naa. dinañ ci ñëwaat dinañ ci yow présentateur bi. jërëjëf bu baax di la ñaanal waaw. jërëjëf temps bi moo ñu xaw a xoj. Hmm. alors ñu bàyyi la rek monsieur le maire nga daal di continuer tey bilan bi nga ne lu bëri def ngeen ko foofu am na fi nga fekk commune bu Médina Chérif am na fu nga ko yóbbu tey hmm. kon tey buñ la ne woon Mm, da ngay présenté waat ci ñaareelu mandat. Euh, bon maa ngi doon kii ci yenn quelques réalisations rek euh, def nañu lu am solo. Mm-hmm. Euh, loo xamante ni ci côté éducation côté santé. Mm-hmm. ci côté maanaam defar dëkk bi. lu mm-hmm. mel ni lotissement. mais aussi ay partenaires. am nga Medina Cherif léegi côté partenariat. véritablement on a beaucoup de partenaires yoo xamante ni ñu nekk ci Sénégal ak bitim réew. Mhm. Euh, bëgg nañ ñëw Medina Chérif pour liggéey. Mhm. déjà fu mu nee nii on a un programme de construction de 500 logements. Mhm. boo xamante ni war na tàmbali bientôt. Euh, am nañu benn programme euh, pour production aquaculture. sur 20 hectares. loolu tamit dafa am solo li ci des mooy. mënuñu wax fii lépp. population yi ñoom ñooma ma faloon. 2014. ñoom ñoo war a décider. Mhm. man mënuma décider dara. Mhm. <laughs> mais ñoom ñoo war a décider. mais mais candidat le moment venu. Mhm. naa ni moom population yi. dinaa leen wax ah sama bilan bi mu ngi nii. yéen ñoo war a xool. Eh, ak sama bilan bi. yéen ñoo war a décider. ñoom ñoo ma andi woon foofu. Eh, am confiance ci man. Eh, jox ma mandat. donc li ma war a def mooy. su jeexee. ma demaat ci ñoom. def leen présentation li ma mën a def. Euh, li ma li ma def. Mhm. li ci des mooy. Mhm. ñoom ñoo war a décider. Mhm. est-ce que dinaa nekk candidat wala déet. non yow yow ñoom ñoo war a décider. yow est-ce que di nga nekkaat candidat. pour <laughs> ah. continuer sa sa projet yi nga dëgmal. waaw bon xam nga loolu laa la wax. su fekkente population yi. jox nañu ma confiance. Euh, pour continuer. ah donc je pense que il serait intéressant. ak expérience tuuti bi ma am. continuer mais. en quelque part. Mhm. Euh, le dernier mot revient aux populations. ok léegi ci tënk élection yi gis nañ ni euh, pouvoir bi nee na euh, app bi opposition bi nee na app bi léegi élection yi kenn xamul kañ lañ koy amal xanaa yéen da ngeen ragal seen parti APR dafa ragal dem élection. déet déet déet ñun kay pare nañu suñu waxoon élection yi tey tey tey tey pare nañu. mais aussi. Mhm. lu ñuy wax ci tubaab. mënoo mhm. bëgg benn affaire. et son contraire. waa opposition ñoo waxoon ci jaloog national bi. Mhm. ñu ne il faut que ñu def audi ficier électoral. Mhm. ñoom wóolaguñu fichier électoral bi. il mhm. faut que ñu def ci audit. ok Sénégal euh, ki ñu def ci dialogue bi. ñu d'accord ci ñoom ci euh, audit fichier électoral bi. ok ñu tàmbale audit fichier électoral bi. def processus bi. bu ñu paree nag après nag nañ def révision de la liste électorale. loolu processus la. mënoo nangu loolu ba pare. nga gis benn situation nga yaakaar ni situation la opportunité la. Mhm. nga ne ah déet déet yow il faut ñu organiser élection yi tey. Mhm. loolu tamit aussi du responsable. kon ñoom ñoo ragal voilà donc euh, foog naa ni. Mhm. waa opposition ñoom ñoo ragal. mais ñun ci côté pouvoir. vraiment on est prêt depuis longtemps. pour ñu dem ci askan wi. laaj la laaj leen ak yeneen mandat mais lu ñu def. ak suñu président. Macky Sall lu mu def fii ci Sénégal. ak ñun effort ñun def ci suñu commune. Mhm. ah ñun kay ñun kay pare nañu. mais mun naa la wax ni. Mhm. opposition nag xam nga ñu bari ci opposants yi. Mhm. Eh, malheureusement eh, seen base bi mooy micro. <laughs> waaw ñu bari ci opposants sénégalais yi. seen base bi tele la ak micro. mais mënuñu réunir dix personnes vingt personnes. mais ñun président la république ak le parti. la coalition Benno Bokk Yaakaar. et la mouvance présidentielle. loolu moo leen tiital. <laughs> donc pare yéen pare ngeen bu yàgg. oui deux mille déjà avant deux mille deux mille dix neuf. Mhm. nous on avait la coalition Benno. Mhm. loolu mosoo ko gis ci senegal mhm. président boo xamante ni day jël socialiste jël gauchiste jël libéraux. boole yëpp boole yëpp pour intérêt Sénégal. loolu moom mosuñu ko gis. te ñu gis euh, ci élection deux mille dix neuf. ñu gagné leen ñu am victoire bu leer. ñu gis loolu doyul. waa opposition jóge fale benn parti bu am solo. Mhm. bu gën a solo bi d'ailleurs. Mhm. jóge fale ñu ne ah yow président Macky Sall yow li ngay liggéey. loolu liggéey bu baax la. Mhm. yow am nga vision. yow war nañ la jàppale mooy mburu ak bi ngay wax. de du question mburu ak soow xam loolu ay caakaan la mais suñu waxee dëgg. ku nekk deuxième élection présidentielle ñëw mu ne man ñëw naa. gis naa li ngay ko jàppale woon moo ko jàppale woon itam. waaw waaw mais ak ànd nag coalition bi. ànd nag coalition bi mais Idrissa Seck rek moom du 20 pour cent non du Idrissa Seck kese. Mhm. moom ànd nag ñu ci bari. je peux dire la majorité. Mhm. ñoom ñoo ñëw. Mhm. ànd fekk waa coalition benn Bokk Yaakaar. te loolu nag soo ko jëlee. nga posé que. nga jël réalisation yi à la base. Okay. loolu moo tax ma ne la. Mhm. su fekkente am na ku ragal. Mhm. dem élection locale yi. Mhm. waa opposition. opposition de micro. Uh-huh. ak opposition caméra. ñoom ñoo ragal mais du ñun ñun pare nañu. kon monsieur le maire ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax ñu bàyyi la nga tàggoo émission bi waxtu bi xoj nañu. ñu bàyyi la nga tàggatoo ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokk yi nga xam ñu ngi doon déglu di ñu bàyyi xel ci euh, réseau sociaux yeeg ci internet bi ñu bàyyi la nga kàddu gu mujj gi. waaw jërëjëf euh, kontaan nañu bu baax. ci invitation bi. di la gërëm. di nuy euh, group euh, réew mi. Mhm. parce que gis nañu vraiment def nañu ay jéego bu am solo. Mhm. sur la presse sénégalaise. aussi bien la presse en ligne. Mhm. que la presse euh, des journaux. que la rajo. te incha allah xam naa ni moom. bientôt ah ñaan naa. ñaan naa yàlla ngeen am aussi seen télévision. pour continuer liggéey bi. di nuy sénégalais yi nag. di nuy waa commune bu Medina Chérif. mais aussi di woo jeunesse sénégalaise. nañu xam ne. Euh, mun nañu mer. Mhm. mun nañu am ay différends. Mhm. mais amaguñu droit ci yenn yi. surtout soo jëlee ci mairie yi. Mhm. soo yàqee mairie. yàqal nga sa bopp. sa bopp parce que doo am papier état civil. ku amul papier état civil doo am carte d'identité. ku amul carte d'identité munoo nekk fenn. pour nga euh, compétir pour nekk employé mm-hmm. donc woo naa leen mm-hmm. de dans la paix mm-hmm. dans la cohésion Sénégal nag dafa nekk réew bu am solo il faut que ñun ñëpp ñu liggéey ci cohésion ñu nekk ci nguur gi ñu bàyyi leen ñu liggéey ñu nekk ci opposition ñu opposé de façon démocratique loolu la ñu ci Sénégal maa ngi euh, nuyu ñëpp euh, en tout cas fekkente Euh, weer bi mhm. weer bu am solo la ñu ñaan yàlla mhm. vraiment mbas bi jóge fii euh, koom-koom bi ñëwaat mhm. euh, xale yi ñu am emploi surtout di féliciter président la république ak vision bu mu am vision bu leer quatre cent cinquante milliards ci ñetti at yi mais aussi bëgg nañu ñu décentraliser. ci suñu communes yi. ak un peu partout. jeunes yi gis seen bopp. am na solo kon ñu koy sant di ko gërëm di ko sant di ko gërëm bu baax a baax moom monsieur le maire Mamadou Gano moo nekkoon tey suñu gan xanaa jox leen dig daje beneen dimanche ak beneen invité.